ñàppal ñi seetaan kàddu Ola taalal ñi nga koy fekk TikTok Instagram Passme. waaye yow sa doom ji da ko koo bëgg a lekk wala da nga bëgg naan ku ñëw ñaan si la ku ñëw ñaan la nga bañ ba kañ. man nag maay bàjjanam jël na sa bagage ñëw sama kër ku ñëw ñaan si ma may kak wuyu ma defal nànk yow moom sa turandoo yorot lay jël. dafa ëppal lu muy demee si yow satuma kalaame laa xam na ah fii la ñëw ni ma papa am na ku ma bëgg tàkk waxtaan naa moom nangam sangam man ko indi ko fi soo ko indee maam ñu toog waxtaan booy boobu ñëw fii ñuy waxtaan si prix jubóoguñu sax parce que tamit foo xarti jare trois cent mille quatre sama doom war naa ko mën a jaayee trois millions quatre millions maa ngi booy bi waxtaan pareegunu booy bi mer jug dem woo ko téléphone am nu mu ko wax moom it mu jël bagage bëgg naa ko may mais nag booy bi mooy loolu waxaale bi mooy loolu waxtaan la rek waaw man xàcc naa 3 millions mais moom ndax ñu xool nu ñu ko lijjantee mais bu mu mer te tamit na bàyyi xel ni booy bi tamit dama ko xont sama doom ji dama ko xont wëgg mu nekkee xale ba léegi maa ngi koy toppatoo waaw te tamit race bu baax laa ko jox kon nag dafa war a def naag ñu waxaale quoi. waaye yow nit nga. yow looy mel na kuy jaay a kii di nit ki ay noppam doo ko maye mu sëy nga mel ni ko nuy jaay nii rek dama ne la bëgg xaalis moom boo ko bàyyiwul lépp lu la dal ci àdduna rek moo la ko teg dama ne la kii jigéen la taaru jigéen mooy sëy bàyyil xale bi mu sëy dama ne boo def def loo ba kii muy àndal ëmbal ko di nga gën a am loo wax nag mayal xale bi mu sëy non maag yéen bokk ñu gis-gis waaw man sama doom bu ko ëmbalee day gën a métti si moom parce que day gën a seer waaw parce que boobaa ñaar laa koy jox dama koy jox sama doom ba pare jox ko doomam waaw boobaa day gën a seer parce que ma yéen rek lay gis ah ñu ëmbal seen i doom ngeen ko wanteer parce que boo demoon tey ji fii si dara di jënd xar xar bi pireem ak piru doom ji bu bokk ñu ñaar ñëpp pilis lay doon kon man pilis laa lay jox voilà man yàkkamtiwuma sama doom jooju nag nekk sa bàyyi nee na nga takk sa bagaas te si kër gi du ma ko wante du ma ko saraxe laa ilaaha illallaah yow wéroo xanaa nga mooy yow bu ëmbee bu amee doom day gën a mooy cher rek comme que yow dof nga yow wéroo nit a xar ngay tëkkale man awma leen na lu may wax ak yow kee daal laay xaar mu ñëw ma may ko ko mu jeex tàkk ah yow bàyyi ma naan ma ay maye maye tur bi du nga ko rafetal noonu naan maye maye maye affaire bi jaay la waaw ko amul du am jabar waaw boo gisee moodu moodu yi wala joor yi wala ñu am ñu xaalis am xale yu rafet yi waaw te tebb aas yi parce que xaalis bi la prix bi la waaw lépp prix bi la rek question de prix la xam nga mais saa yi mooy loolu waaw sama doom yi nag miss bu rate la waaw miss la waroon doon mais daa rate parce que bàyyam moo yorul waaye nag miis la te rafet na njool na waaw léegi daal moom prix bu baax rek waaw man na du ma xëcc ay 5 millions 6 millions 3 millions jëm suuf booy bi waxal faram boobu dañuy waxaale waaw man yàkkamtiwuma quoi nañ waxaale mën naa wàcc ñu waxtaan bu juboo quoi man méttiwuma voilà yooyu nag si jàpp doon promotion bi waaw ne ko kooku méttiwul dama nga waxaale ak moom mais boo ñëwee bëgg ma xëpp affaire bi day métti muy yéen kii kan lay waxal naan mais affaire promotion yow xam nga ni wéeroo man nit laay waxal sa waaye yow nit nitee woon dof nga yam ma ne la xaalis boobu man soxloo ma ko sama doom ji ma joxe ko mu jaar fu mu war a jaar moo ma gën a lu ma mën a am si àdduna laa la wax te yow xam nga ma xam nga ni man amuma problème xaalis waaw xam nga ni booy bi tey ji bu demee woon 3 millions lu yow lu mu dee dee dee di nga laal 3500 xam nga ni man baax naa waaw amuma problème xaalis waaw jàpp si nag mu dem bu demee it sa bàmmeel day maase de. jàppal ñi seetaan kàddu Ola taalal ñi seetaan kàddu jàppal YouTube nga koy fekk TikTok Instagram pass